sëñ lay ñoo ngi lay fay. tur la. xaadim la. xaadim waaw. xaadim diggante combat Papa ak Siteu kan nga jàpp ne mooy daan. waaw man de li ma gën a jàpp mooy sita mooy daan. waaw parce que fi ma ko teg mooy dama gis ni Siteu moo gën a jot moo gën a féete xale waaw. mais bu fekkee combat bi maanaam si xeex la wala si bëre sa jàppoon ne Papa Sow moo ëpp si bëre bi. gëm naa ne Papa bu xeexee day wàcc moom. man loolu laa gis. buñ jàppantee tamit moom parce que Siteu xam nga Papa Sow moom daanaka xeexam mooy loolu yaa ma gën a xam contrôle li day kii nii rek dem mais bu fekkee ni teg dañ koo teg ci yoon Siteu da koy wàcce amul amul amul amul xaar. dafa nar yéex. non luy gaaw la luy gaaw la parce que Papa Sow bu dikkee maanaam du fi nekk di xaar. mais da nga dégg Papa Sow ne ko bu doon bëree maanaam dix fois dix fois dama na koy daal. waaw loolu waxi mbër la rek. kenn ku ne sa yaakaar ngay waxee man mais man li ma yàqin bi ma am man carrément mooy bu ñu taxawee Siteu wàcc ko. doomu mun a saam. bu bien sûr moom laa gën a gëm sax man te moom laa gën a séentu te xam naa ne Papa Sow léppam xeex la yaakaarul mbapat ak Siteu loolu man leer na ma man. jaajëf champion. ok technicien la laam mooy wax nii alors ñu dem jàll si peer père. waaw. père ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waay. jàmm maa ngi sant yàlla bu baax. bi naka la. Pape Samba Dieng laa tudd. Pape Samba Dieng. père ñeen euh, euh, combat Papa Sow Siteu. waaw ka nga jàpp ne mooy daan. ah man nag yaakaar naa ni bu combat bi bu fu muy jeexee papa mooy daan. waaw parce que xam naa ne papa moo moo moo gën a moo moo ëpp expérience. Siteu bien xale am na doole mais papa bu dee xeex papa dàq xeex moo gën a ñeme bu combat bi yàggee papa da koy daan soobee yàlla yonent bi. ah bu gaawee mën na ma Siteu mën na am dara. mais sit buy xeexee Siteu du ëpp avantage parce que Siteu ay loxo moo gën a gudd. yaakaaruma euh, dafa dafa ñeme day jël loo ko enca loo ko ko jox mën na jël encaisseur la tey day xeex xeexkat la te du la du la bàyyi du la bàyyi dara nag tey day dem ba jeex combat am su amee coow buur day dem ba mu jeex boo defee faux pas da koy da koy exploité du la may dara. tey boo jox maanaam Siteu Papa saw benn conseil maanaam nan la war a bëree jour boobu. man Papa li ma ko wax mooy na tey xale lay bëreel xale bi mën na bëree am na doole am na ginnaaw mais na tey mo na ko bëri moom expérience waaw. père amateur la par père ku xam lamb la. waaw amateur la eh, eh, kii expérience la am Papa mbër mu yàgg la mbër mu mag ñu ko dar ay mbër lañu xam nga Siteu mën na bëri la mais ay xale ñoo ko dar amul ay mag ay xale ñoo ko dar. kii na boo ko ay ñoom Modou Lo ko dar ay yoo ko waa Fass donc euh, bi daal Papa diggante combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang. Boy Niang li ma li ma koy digal mooy bu mu naagu Balla Gaye mbër mu mag la te mbër mu mbëru expérience la na tey bu bëri bi yàggee nag mën na am avantage mais bu ko profité Balla bu mu jeex waaw. na man daal su ma doon euh, kii Boy Niang fexe ba du ma jàpp danaa ko danaa fexe ba duwal sama du ci laal dara mais bu bëri bi bu yéexee avantage booy ñaanoo bu gaawee nag Balla mën a am dara. mais ñu bëri maanaam Balla Gaye day song. Balla dana song mais dana ko jë ko jëm a natt nag ci song bu ar a ne ci koom booy ñaan dana arrière mel ni ko ragal waaye stratégie la waaw stratégie waaw merci beaucoup. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Père ñu maa delloo jàmm maa ngi sant bu baax. diggante Papa Sow ak Siteu kan nga jàpp na mooy daal. ah attention Papa Papa moom mbër mu mag la mais Siteu tamit dafa doon xale ba pare dafa dafa dafa gaaw. moo tax foofu moom yéex mbër foofu moom gaaw rek moo fa moo baax mais bu yéexee tuuti rek Siteu mën na ko daal waaw parce que Siteu day mbër moo xam mbër mu oyof la ba pare dafa am waaw ah, foofu laay waxee man. maanaam bu fekkee xeex la moom Siteu moo ëpp avantage. waaw bu dee xeex la moom Siteu moo ëpp avantage. bu fekkee bëre parce que day mbër mu mag day mbër mu mag Papa Sow day mbër mu mag. mais kan mooy favori bi si ñoom ah, xanaa pour man de Siteu mooy mbër mooy a gaaw dafa nar a bi combat bi mën naa gaaw parce que ñaari xale lañu te ku si nekk am na loo bëgg foofu moom mënul xaar parce que calcul amu fa. mais bu fa calcul bi ëppee rek maanaam foofu mën nañ match nul mais bu nu bëree rek mën nañ ma moom mbir mi mën naa gaaw waaw mën naa gaaw trop. jërëjëf Fer. jërëjëf. yaa ngi cool. alhamdulilah. diggante Papa Sow Siteu koo yaakaar mooy daan. combat boobu kenn mënul ni kenn ay daan parce que ñaari daanaan lan. Ah, waaw ku si naagu rek ku si naagu rek sa morom def la ko. ka mooy si ñoom ñaar. favori amu si parce que Siteu deful combat bu jaaxal Papa Sow kon maanaam combat boobu da ngay ñëw jox ko respect rek. ku si nekk indi li la li nga xam ne nii moom lañ la digal respecté ki ngay bëreel ànd ak dal parce que ku si def erreur rek daanu waaso nekk na mbër moo xam ni takusaan gu ne taxaw na ko si te tamit macha allah xale boo xam ni ñëw na rek indi jom ful fu la rampe yéeg. boo doon teg ñoom ñaar si kan ngay teg lamb maanaam lamb ni ñu ko waxee rek reenu ñaam bi la mais nag di nga am sa yéene ni kii mooy daan wala di nga am tamit. ku la sa xol jox mi kii laa faral ngir mu am victoire mais si cadre làmb moom kii yee daan tant que arbitre sifflé wul moom mënoo koo xam déedéet. bu ñaar bu doon teg si ñoom ñaar doo teg si poisson. man benn mbër laa am tagoo ko moom Ama Baldé jeex na <laughs> keneen kuy bëre ku ne dinaa si ngir plaisir mais du ma si sonn du ma si débat du ma si ni kii man du ma ni si kaamu mais l'essentiel daal bu jàppee ne moo man Papa Sow day nax boppam ndax Papa Sow nekk na mbër moo xam te intelligent mbër moo xam ne bu dee bëree am na ko bu dee tamit cadre mbër mu ngi si moom bu dee caay-caay bi mu ngi si moom waaw. licencié daal may conseillé si tam mooy moo gën a nekk xale. na indi jom ak fula ak fayda. yow man ci wetu Papa nga de. non du ma Papa nga jox favori. <laughs> non non du ma Papa Sow. Papa Sow nga jox du ma Papa Sow xam nga lu du ma Papa si de dama gis dama seetaan contrat yi njëkk ya avant combat bi ñuy tëggaat. Euh, euh, yaa ngi de contrat yi njëkk na dama koo seetaan ma gis na muy waxee ak na muy doxe nga xam ni kii naago na si làmb. parce que ba bi ne xaañ Papa Sow combat bi di yàqu jàpp na ni instant boobu combat bi mu ngi si loxoom te loolu du lamb dafa ragal dafa lii dafa laa dafa la loolu dina jay mbër ba mu dugg si loo xam ne da nax. alors benn amateur lamb ngi nat père Sané ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tur bi naka la. Aboubacar Sadikh uh-huh. Papa Sow ka nga jàpp ne mooy daal. Papa Sow. Siteu euh, ah Siteu ko gën a taxaw moo gën a féete xale Siteu a combat bi nu mu demee woon euh, revanche bi dina metti loolu si Papa Sow ndaxte combat boobu dañ kaa yàq te ñu ko yàq mu ngi jóge si ñoom euh, Papa Sow loolu moom moo amoon. réellement ndax ñëpp ko seetaan wante combat bi moom bu fekkee te tëggaat nañ ko moom am na ah Siteu ko gën a féete. am na le six bi lañ gën a bëri ñoom waaw kon nag euh, Siteu moo gën a féete kaw ndaw te incha allah rabi Siteu kay daan. waaw dafa nar a gaaw dafa nar waaw combat gi daal euh, day gaaw day gaaw ndax Siteu du ko may dara te du ko xaar. maanaam bu xeex amee est-ce que maanaam Papa Sow nekk si moom avantage. waaw Siteu ko gën a nekk xale te moo ko ëpp compétition instant yi ñu toll ah ndaxte temps yi mu ngi woon Europe doon def compétition ah. en même temps tamit Siteu ko dàq xeex waaw Papa Sow ay jamono amoon na doole googu wante jamono yi ñu toll moom si taa ko gën a nekk xale te moo ko gën a moo gën a gaaw moo ko dàq xeex. merci beaucoup Pek. merci.